alhamdulilahi rabil aalamiin wasalaatu wasalaam ala rasulihi al amiin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi tedd yi déglu rajo xam sa diine asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen a ngi ànd ak ñun di déglu émission bi ci WPAT 930 AM man ngeen ñu déglu tamit ci numéro téléphone bi di 213 493 0134 213 493 zero one three four man ngeen ñu déglu tamit ci www dot xam sa diine dot com ñetti mbir yooyu yëpp boo leen ci demee man ngeen ñu déglu émission bi en direct wala bu émission bi passé tamit twenty four hours yu ne mën ngeen ci déglu émission bi mbokk yi tedd yi ñu ngi tàmbali émission bi di bàyyi xel ñi déglu émission bi yëpp ñu ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu wërsëgal ñu ak njëggalam ak yërmandem wërsëgal ñu asalaama wala afiya fi dunia wala axira ñi nga xamante ni yàlla nattoon na leen tamit ñu nekk ci ay situation yoo xamante ni mën ñu déglu émission moo xam dañu nekk ci lalu hôpital wala caabi feet leen gannaaw wala bépp xat-xat bu ñu nekk ñu ngi yaan borom bi subhanahu wa taala mu wërsëgal leen ak yaatal delloo leen seen sago bañ mën a dellu siwaat ànd ak ñun bu loolu weesoo mbokki tey du duñ dañ di fàttali suñu bopp d'abord di leen fàttali saa yu ñuy tàmbali eh, li nga xamante moom mooy émission bi mbir mu am solo moom mooy lan li nga xamante moom mooy islam diine islam ci xam la tegu maanaam islaam lañ koy jàng xam ko di ko doog a jëfe loolu moom moo waral suñuy jéego ci émission bi mbooloom xam sa diine ci boppam ak lépp loo xamante ni da cee aju loolu dong ko waral loolu tamit tax na ba émission tey bii am solo lool ndax li nga xamante ni moom mooy émission bi li ñuy ñëw tey mooy li nga xamante mooy xam-xamu sharia maanaam li nga xamante ni moom mooy diineel islaam mën nañu jàpp ne daa tegu ci aw yoon yoon woowu ñu ngi ko tuddee sharia nga xam buñ ko waxee xel yu bëri dañuy dem ci àtte wante du àtte rek maanaam lépp loo xam dañ koy jëfe ci ay diine ci diine ji mbir la yoo xamante yàllaa ko yonentam ñoom ñoo ko santaane def leen ko nii ak nii loolu moom mooy li nga xamante moom mooy charia xam-xam la boo xamante ne nii xam bu mënta ñàkk la maanaam mënta ñàkk ci diine ji xam-xam charia kenn ku ne danga ko war a xam xam ca li nga xamante ne nii mënta ñàkk maanaam mbir moom nga xamante ni ñàkk ñàkk maanaam li nga xamante ne charia mu nekk mbir moo xamante mënta ñàkk dañ ko war a xam loolu la ñu docteur Ahmed loo di ñëwal tey ci émission bi diñ ci waxal mbir yoo xamante ni mbir yu am solo la laneen li mot a bàyyi xel tamit ci émission moom bala moo tàmbali ndax émission bi tamit maa ngi fàttali nga ma nga amoon fële ca Ndar Géej foofu la ko doon amale ci tàmbale bi laata muy dugg ci xol waxtaan bi dina indi ab gendeeku boo xamante ni lu am solo lu mat a xam ci histoire islam ci Sénégal ak taxawaay bi nga xam ne ñu ñuy dund tey di nekk ay Sénégal dañ ko war am tax dañ ko war a xamee histoire boobu am ci taxawaay boobu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 julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon mbokk yi sase ñu war ko waxtaane ci seen am solo bii koo jagleel dëkk bu am solo bii wàll la Sénégal kon tomb waxtaan woo biñ tànnee kan bi ma jot ci yëg ne fii ci ndar lañ ko war a defee li sama xel jëkk a dem moo di itam day targhib la ci seytaane maanaam naqaral seytaane la ndax fàttewuñ ne fii fi ndax ci ay jamono fi la tubaab bi ubbi woon bureau boo xam ne li ko taxoon a jóg mooy contrôler bépp téere boo xam ne mi ngi dugg senegaal ngir sun mag ña bàyyi ak maam ak ña deme ne ñoom buñ yër téere yi nga xam ne tubaab bëggul ñu yër ko loolu mooy lan moo di téere yañ doon bàyyi ñuy dugg benn mu nekk téere boo xam ne dara lu jëm ci li wax ci pas-pasu jullit nekku ci wala bu dee wax lu ci jëmit waxin mu jaxasoo lay doon bu mel noonu danañ bàyyi mu dugg wala téere boo xam ne day wax ci furuwul fiq maanaam banqaas yu yi nga xam ne mooy jàngale ni ñuy jullee lu ñuy wooreeg lu ko nuru te jihaat bañ caa bokk boobu danañ bàyyi mu dugg wala téere boo xam ne dafay wax ci lu jëm ci kàllaam ak arab di jàngale adab wala muy jàngale shi'r wala lu ko nuru muy littérature bu mel noonu dañuy bàyyi mu dugg wala mu doon boo xam ne day jàngale lañuy ñuy tudde tasawuf ci ñoom muy loo xam ne daal yoonam nekkul ci àdduna lépp ci nit ka rek lay yem ñu ne booba mën naa dugg waaye nag bu dee téere boo xam ne day wax ci xadiis wala muy jàngale fas-fas wala lu jëm ci jihaad nekk ca ci seen dex gi foofu lañu ko daan sànni loolu moo nu jural moo tey sun mag ñi bàyyi ak maam ak ñu demee ni ñoom boo leen nattoo ci buntu fiq dangay ngay gis ne furoo fiq di Maalik ñi ko gën a xam ci lañ bokk ndax yooyu téere du gon boo leen seetloo ci way ci kàllaam ak ak lu ko nuru ay kuuy lañ yoo xam ne arab yi féetewuñ leen ca kanam ndax yooyu du gon nañ boo xoolee ci tasawuf muy lañ tënkoon te biir téere yooyee ci lu nit ki di war a melokaanoo la ci nekk lépp jàng nañ ko jàppit ne mooy lislaam jëwér dégg ko na ko ña bind waxe dund ko itam nañ ko ñooña bëgge kon ñooña mën nañoo jàpp ne seen ngànt moom fa yàlla teggiku na ndax koo xam ne la nga jot ñu tudde ko xam-xamu sharia tudde ko xam-xamu diine wala moyen bu cay yóbbee doomu aadama jàng nga ko lépp dégg ko la nga ci xamit nga jëfe ko noona kon kooku jàpp naa ne jaanam wàcc na ñooñee nga xam ne ñoo doon toog nag place contrôle boobu du tubaab yi ci seen bopp ñoo ko doon def waaye ay nit lañ jëloon ñoo xam ne ay sénégalais lañ yoo xam ne jàng nañ tubaab ba mën ko jàng arab ba doon sax ci waykat yu mag yi ñu xam leen xam seen i tur ak lépp téere bu tubaab bi ne boobu baax nañ ñu jàllale bu mu ne baaxul ñu sànni ci dex tay tas mi kon léegi li mu tege ci seeni loos mooy doom yi ñëw gannaaw nga xam ne la gàllankooroon dox seen diggante dox diggante maam ya ak ñu mën a xam yenn yi gàllankoor googee dañ na su doon dikkee ne lu maam xamul woon wala bàyyi xamu ko man du ma ko jéem a xam wala luñ dundul woon ci diine man du ma ko jéem a dund ma ne su fekkee ay doom juddu nañ déggee diine déggin wu mel noonee ñooñu ñu ngi jàppale tubaab ca lam bëggoon waaye nag su fekkee doom juddu na nangu ne diine ji day diine yàlla la ca wér mooy li nekk ci alquran ak sunna te alquran ak sunna moom yi borom bi tabaraka wa taala moo ko wàcceel boppam moo ko wattul boppam mu dib tubaab wala naar wala wolof wala séeréer wala leneen mënu ko gàllankoor it ba du àgg ku nekk kon àgg na fépp xam-xam bi it jàppandi na ba ñëpp mën nañ koo jàng kon su doom dikkee am déggiin woowu jàpp ne it baay ak maam jéemoon nañ liñ man lépp ba def ko ñu jéggalul leen ca la nga xam ne xamuñu ko ak la nga xam ne juum nañ ca lañ ca war a jot lil nit ñi bañ xam ne lii njuumte la loo xam ne baay fi jóomoon wala maam ñu leeral leen ko bañ xam ne loolu njuumte la su fekkee doom yu mel noonu ñoo ñëw gannaaw bi ma ne kon doom yooyu ñoo jàppale baay ak maam doom yooyu ñoo xeex tubaab kon xolu waxtaan wi yëg-yëg boobu laa ci am bi ma yéegee ne loolu ci la ñuy waxtaan ak yëg gi ma yëg ne béréb bi ci lañ koy defe mu def nag jëmmi waxtaan wi ci boppam mu di xam-xamu sharia ni nga xamee ne jullit bi aajowoo na ko aajowoo bu àgg ci nécessité maanaam lu mënta ñàkk ci ak dundam waxtaan wu yaatu la wax ne lu nekk warees na ko mën a na ko cee mën a wax muy li jëm ci xam-xam buntub xam-xam dafa yaatu mënees naa wax ci teggin ciy jàng mënees naa wax ci ban méthode ci bëgg a jàng xam-xamu sharia ci lay jaar ba mën a am xam-xamu sharia boobu kuy tànnu jàngalekat ban jàngalekat nga war a tànn yooyu yëpp yu ñu mën a waxtaane la waaye nag suñ waxtaan dafa jëm ci tëlee ñàkk yi nga xam ne xam-xamu sharia tëlee na koo ñàkk ci jullit bi bëgg a doon ab jullit ci ab dundam moo tax nu tënk ko rek ci ñeenti baax bu jëkk bi mooy lan lan jublu ci xam-xamu ñaareel bi mooy ngëneel li xam-xamu sharia am ñetteel bi mooy xam-xamu sharia ci lan lan ko aajowoo ci lan ñeenteel ba te muy ba ci mujj moo di asalafu saalix muy ñi mu andil lislaam ba mu agsi fii la ko tàmbalee ca saxaaba ya ba ci ñu fi ñëw seen gannaaw te jaar ca seeni tànk roy leen ñooñu yan coono lañ doon def pour am xam-xamu sharia loolu ñu jox ci rek ay misaal bala ñoo dugg nag ci biir danaa joxe ay règle yoo xam ne jaadu na nu jiitloo ko door dugg ci biir thème bi ñuy waxtaane règle ba ci jëkk moo di al ilmu al mutlaq lillahi waxda xam-xam bu tàmbalewut fenn yëmut fenn amut dara lu koy fekk du lu nëbb wala lu feeñ kooku sunu borom tabaraka wa taala rek moo ko yeyoo xam-xam bu tàmbalewut fenn yëmul fenn lu mooy aalimul xaybi wa shahaada mu jeexal lépp lu feeñ ak lu nëbb moo ko xam moom dong nag moo mel noonu ñaareelu régal bi moo di la maasuma fi l ilmi illa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amul kenn koo xam ne fegal nañ ko njuumte ci xam-xam ku dul kenn mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax al imaamu malik imaamu daar il hijra daf daan wax ne ma minna illa raddun wa mardudun alayhi illa saaxibu daaka al qabr mushiran ila xabri rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da daan wax ne amul kenn ci noonu te Malick kenn ku ne xam na ne ci kuy xam-xam ya la woon mu ne amul kenn ci noonu koo xam ne du ay waxam day am luñ cay jël ak luñ cay bàyyi ba mu des kële muy borom xabru bee daal di joxeñ xabru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon la maasuma fi l ilmi illa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñetteelu xaa xaayida bi moo di wa ma uditu min al ilmi illa qalila doomu aadama ji ak su demoon bay tudde ko géeju géej la ci xam-xam sax loolu waxin la waaye nit ki du bari xam-xam kenn bariwul xam-xam dañuy taneente rek ndax borom bi tabaraka wa taala nee na wa ma utitum min al illa qalila li ñu leen jox ci xam-xam yéen ñépp ngeen bokk ko tuuti na tuuti nag bu ko ñépp bokkee kon suñ naan diw bari la na ci ah xanaa mooy xool xool digganteem ak ñenn ña ca des ñam tane su ko defee ñu ne borom xam-xam la wala ku bari xam-xam la waaye tuuti moom bu ko mbooloo bokkee kenn ku ne tuuti rek nga ciy mën a am wa ma utitu min al ilmi illa qalila régal bi ci tegu moo di al ilmu bi taallum xam-xam jàng moo koy jox nit jàng rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci xadis boo xam ne Abu Darda ak Abu Hurayra génne nañ ko yàqli nañ ko te daara xutni génne ko alxatibul baxdaadi itam génne ko ci taarix cheikh nasiruddin al albani wax ne xadis xasan la mu wax ne al ilmu bittaallumi innama al ilmu bittaallumi wal xilmu bittaxallumi mu ne xam-xam niñ koy mën a amee mooy sàkku lewet it niñ koy mën a defee mooy deet koy fàggu da ngay lewet lewet lu ba lewet boobu reegal li muy jàngal moo di nit ki mën naa am loo xam ne amu ko woon muy kër këri ba am ko mën naa am melokaan woo xam ne melu ko woon muy kër këri ba mel noona loolu lan régal boobu di jàng kon nag kooku day soññee yëgal nit ki ne ah yow kat xamoo tey bul ne kon du ma mën a xam fexeel ba ëllëg nga mën a xam régal bu mujj bi ci li ñuy mujje ci njiit laay yooyu moo di ne aljahlu mamkuur réer kenn bëggu kenn bëggu te réer ka gën a réer ci nit ñi boo nekk woon yow ku réer nga ba watul ngeen xeex kon xam-xam ñëpp a ko bëgg waaye réer kenn bëggu ko kon nag loolu lam nuy jox ba tey dafa nuy soññi ne ginnaaw réer kenn bëggu ko nan ko daw kon ku daw réer koo jëm ci sàkku ji xam-xam ku daw réer ci xam-xam nga jëm te xam-xam mu ne su ko am te du doon koo sàkku su noonu leeree kon lu dugg ci ñeenti tomb yi ñu dige woon tàmbalee ci bu njëkk bi te wax ju gàtt lañ ci wax moo di lan lañ jublu ci xam-xamu sharia defe naa ne ñu toog fii lu ëpp ci ñoom boo leen laajee ne xam-xamu sharia mooy lan mën nañ laa wax lu mu doon kon suñ ko doon gàttal dañuy wax ne mooy ilmu ma anzala allahu ala rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min albayinati walhuda xam-xam bi sunu borom tabaraka wa taala wàcce ci ab yonentam alayhi salaatu wasalaam ci loo xam ne luy génne nit ci lëndëm di ko yóbbu ci leer la di ko génne ci ak réer di ko yóbbu ci xam xam-xam boobu mooy xam-xamu sharia ilmu ma anzala allahu ala rasulihi min albayinati walhuda mu jeex tàkk amma nag ngëneelul xam-xam suñ ko doon waxtaane moom doy na tomb doy na doy na waxtaan waaye danañ jukki yoo xam ne danañ ci tegtaloo ne dëgg dëgg xam-xamu sharia nit ki daf ko war a am borom bi tabaraka wa taala waxal na boppam ci alquran ne qul hal yastawi alladina yalamuuna walladina laa yalamuun qul hal yastawi alladina yalamuuna walladina laa yalamuun innama yatadakkaru ulul albab ñi xamangee ñi xamula nga ne leen ndax ñoom ñaar ñooyam al imaamul alosi ci tafsir laaye jooju day wax ne al istifham litanbih ala anna kawna al awalina fi ala maarij al xayri wa kawna al-aaxiriina fi aqsaa madaariji ash-sharri min az-zuhuuri bihaysu laa yakaadu yaxfaa ala ahadin min munsifin wa mukaabir nee na ñu jëkk ñi muy hal yastawi alladina yaalamuun ñi nga xam ne ñoo xam nee na nekk gi ñu nekk ci njobaxte ni yiw la gën a kawe ci yiw nekk gañ fa nekk ak ñun tuddaat muy ladina laa yaalamuun nekk gi ñu nekk ca suuf ci aw ay gën a suufe nee na loolu leer na leeraay boo xam ne kenn mënu ko weer innama yatadakkaru ulul albaab ku yorum xel rek xam nga ne ka xam moo féete kaw ci yiw ka xamul kon laaya ji loolu lay wax borom bi tabaraka wa taala waxaat ne yarfai illahu alladina amanu minkum walladina utu alilma darajat wallahu bima taamaluuna xabir borom bi nee na yëkkati na ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla boole ko ak am xam-xam ay daraja yu kawe darajaat la al imaamu Shawkaani rahmatullahi alayhi wa ala man qablahu al alusi ci li mu wax ci aaya boobu nee na annahu yarfau alladina amanu ala man lam yumin darajaat ki gëm yàlla yëkkati na ko ay daraja yu kawe ci kaw ki gëmut wa rafaa alladina utul ilma ala alladina amanu darajaat ñi gëm kese te amuñu xam-xam mu yëkkati ñi gëm ba noppi am xam-xam mu yëkkatiwaat leen ay daraja ci kaw mu ne kon fa man jamaa bayna al imaani wal ilmi rafaahu llahu bi imaanihi darajat summa rafaahu bi ilmihi darajat nee na ku leen boole ñoom ñaar yàlla dana la yëkkati ci ngëm gi nga gëm daraja yu kawe tegaat te yëkkatiwaat la ci kaw xam-xam bi mu la yëkkati ay daraja yu kawe kon borom xam-xam yi borom bi tabaraka wa taala daf leen a teral fii ci adduna di leen teral itam ëllëg benn bis alxaafis ibnu xajar ci misra dafa génn ci mawkibam xam nga ne alxaafis ibnu xajar moo nekkoon qaadil qudaat bu doon ci jamono ji danga naan mooy ministre de la justice mooy ci lu jëm ci wàllu képp kuy atte ci jamonoom ci jamono yooya moo la jiite woon ci waa misra bu masaan génn mawkib lay àndal mawkib buñ ko waxee mooy cortège boo xam ne day fees dell dell ak ñu ko wër ñu def ay tot liggéey ay tànk yu rafet yoo xam ne xaadil xudaat ca biir lay nekk ñu jiitu jiitu ña ca topp topp ñu nekk ci ndeyjooram ñu nekk ci càmmoñam su ne tëll rek ñëpp xam ne moo génn benn bis alxaafis ibn xajar dafa génn nekk ci biir cortège bu xumb boobu ñuy dox ak yu mag yeeg yu taaru yi ñu leen defal ak col yañ sol ñoom seen bopp lépp doon lu yéeme mu jëm ca tribunal ba di xëy biroom noonu la daan xëyee noonu la daan wàcce mu romb benn yahudi boo xam ne la muy liggéeyee mooy day segal ak diw li ko jaay ma nga niin a niin fenn fu ne diw gaa nga fa poussière bi ñëw ànd ak diw bi ci yaram yi nga xam ne bët yi ngay seen muy xor-xor yi ci biir waaye lépp poussière la di yahudi boobu seeni alxaafis ibnu xajar di ñëw mu taxaw ci kanamam yëkkati loxo alxaafis ibnu xajar daal di wax sooket yi muy ci yor laab bi ne ko taxawal mu taxaw yahudi bi ñëw ne ko yéen seen yonent bi dafa wax ne addunia sijnul mumin wa jannatul kaafir xadis boobu muslim génne na ko seen yonent bi daf ne adduna kaso la ci jullit waaye àjjana la ci yéefar mu ngi koy jiima diingat ne ko ndax yaakaar nga ne yow lii nga nekk nii nga mel ab kaso la ak yaakaar nga ne man lii ma nekk àjjana la ndax leer na laaju yahut bi kon da koy jiima dingar da ko bëgg a wax ni ko seen yonente bi li mu wax du noonu seen yonente bi nee na woon adduna ab kaso la ci jullit bi te yow yaa ngi nii naataange ji nga nekk ak cortège bi la wër nee na woon sawar la ci yéefar te maa ngi nii xoola li may liggéey ak ni ma mel ak sagar yi ma sol ak poussière beeg ismail jawaab alxaafis ibn xajar lu mu ko tontu tontul boroom xam-xam mu ne ko nii nga ma jëfe ak lii ngay tudde naataange ak lii ngay tudde naataange boo ko comparé boo ko gàmm-gàmm leeg la nekk àjjana man cib kaso laa nekk cib kaso laa nekk boo xam ne su ma wóoroon ne su ma génnee ci kaso bi foofa laay jëm kon ma bëgg a génn tey waaye yow itam nii nga mel ba tuddee ko ak texeet yi nii nga mel sagar yi nga sol diw gu taq ji poussière bi ba tax nga jàpp ne ak texeet yi la soo ko comparé ak sawara way xaar ab yéefar ëllëg kon nga xam ne ci àjjana nga nekk tey yahudi bi daal dina ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah bi mu déggee loolu li mu ko fayee mooy daal di dugg rek ci lislaam kon teraanga jooji xam-xam di teral di teral ab jullit daf ko war a dolli ak gën a dëgër ci gëm li ko yàlla digoon ginnaaw dafa waxoon ni ñi gëm yàlla di góorgóorlu ci xam-xam daf leen di yëkkati ay daraja mu gis moom ma ca nekk di ca kërkëni ñeewul ay moroomam kooku da koy fàttalil ne ko su ca continuer te góorgóorlu te sellal bu ëllëgee borom bi tabaraka wa taala dana ko fay yiw dana mën a rafet njort léeg-léeg borom bi tabaraka wa taala nit ki dana toog ba mu yàgg mu yëg ne mënta fay diine ji dëgg la adduna sax ko woon a jóg ndax su ko taxee jóg rek àdduna am tukki bépp xam-xam boo xam ne borom daf koy wute àdduna kooku ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe kooka sa war a gën a yey ci moom waaye su fekkee ne sellal moo tax mu jóg jàng diine yàlla ji ak xamle ko kon borom bi tabaraka wa taala ni mu ko waxee yarfa illahu alladi allahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat loolu moom jullit bi bu mu ci am sax sikki sàkka moo tax boo gisee ndaw ñuy jàng di am ay njàqari naan waaw école bi bu fi jógee moom ndax sa diplôme danañ ko nangu wala diis ko nangu wala su ma jeexalee nag nu may def léegi na la loolu pas-pas bu yàqu la ak ñàkk xam diine sunu borom tabaraka wa taala ak ñàkk xam liggéeyal lislaam fan la toll moo tax mbir mi laaj na jullit bi ci jëmmi boppam pas-pas bi mu yor su fekkee bu dëggu la ni mu koy dundee ci yaakaar ëllëgam mu dunde ko ci fayam tam pour lenn lenn ci àdduna du ko du ko jaral mukk mu toroxlu ba jaay lu toll ne tarfatul ay ni ci diineem wala mu mën a toroxlu ci kanam koo xam ne àdduna yi la am yow nga am diine ak ak àdduna kooku amul benn benn toroxlu boo xam ne wala suufe wala doye di goo xam ne war nga koo def ci kanamam ndax borom bi tabaraka wa taala moom da ngaa yor loo xam ne daf koo teral da ngaa yor loo xam ne daf koo teral muy xam-xamu sharia kon bu fekkee xool nañ njëriñ yi nga xam ne wala ngëneel yi nga xam ne xam-xamu sharia am na ko lool ak gàttal la ci lool danañ ci gàttal rek ci ay tomb benn moo di ne xam-xamu sharia mooy ndonol yonent yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fii yi bàyyiwuñ fi ndono loo xam ne ay dërëm a ci dinaar lañ bàyyi wuñ ci xaalis bi ñuy donn waaye liñ ci bàyyi mooy xam-xam mu ne ndono loolu nag ku ko jël yow sa cër moo am solo sa cër moo laaj bañ lay laaj xamoo ko nga dem gëstu jiwaat yooyu yépp yu dolli nit ki xam-xam la te jamono yi ngay jàngale la ngay jàngale wala nga koy waxtaane jamono yooyu yaa ngi jàngat yaa ngi réfléchir yaa ngi baamtuwaat di nafar li nga jàngoon ñetteel bi moo di al ilmu xaarisun wal maalu maxruus alal ji yow yaay naf nafi di ko garde ba du dem waaye xam-xam bi moom daf lay garde moom da lay garde nga dem ba bëgg dugg ci njaaxum xalaataat ne ah loolu kat ndekk sharia tere na ko mu daal lay freiné nga yam foofu kon moo lay garde ba doo tàbbi ci lu baaxul doo tàbbi ci mooy yàlla doo tàbbi ci bokkaale doo tàbbi ci biddaa te aajowul na ngay wut ay gaal naan xam-xam bi dama ko ciy denc rek koy def ni moom ginaaw mi ngi fi du dem alal ji nag day aajo ay compte aajo ay nangam daf na fi guddi ak bëccëg limaat kalkin nangam manqué na ci boo wutul danaa perte ragal guddi ak bëccëg xam-xam bi moom demewul noonu ñetteel bi wala ñeenteel bi moo di sunu borom tabaraka wa taala borom xam-xam daf koo boole ci kuréel bu mag bi muy wax ñi nga xam ne ñoo jëkk a seede tawxiid boppam la jiital teg ci malaayika yi teg ci boroom xam-xam yi shahida allahu la wax yàlla seede na annahu la ilaha illa huwa walmalaikatu wa ulul ilm qaiman bil qist yàlla seedeel na boppam ne moom kenn la ku ca tegu mu ne malaikaam yu tedd ya ku ca tegu mu ne boroom xam-xam ya tuddul keneen boroom xam-xam yooyu kon yonent yaa nga ca seen biir ak ña jàng ndonole fi yonent yi bàyyi woon kon boroom xam-xam maqaama bi mu nekk maqaama bu kawe la juróomeel bi boroom xam-xam yi ñooy xaaju ulul amr maanaam ñi jiite nit ñi ci kaw suuf boroom xam-xam mooy benn xaaj bi borom bi tabaraka wa taala daf ne yaa ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum topp leen yàlla topp ab yonentam ak seeni njiit boroom xam-xam yu firi aaya ji yépp ci tafsir dañuy wax ne ulul amr diggante ñaari kuréel rek la al umara wal ulama njiit yi nga xam ne ñoo leen jiite ci wàllu àdduna di leen atte ak njiit yi nga xam ne ñoo leen jiitu ci wàllu xam-xam di leen orienté ñooñu ñooy am amr kon boroom xam-xam doonut ku woyof ci société yi delluwaay la delluwaay la ci société bi da di nag ñaar ñooñu suñu àndee muy umaraawu ak ulamaawu suñu àndee kooku ak texe la ci askan waaye seenu tàqali ay jafe-jafe yu bari lay indi àndandoo ga mooy lan moo di al umaraahu muy njiit yay àtte ci wàllu àdduna ñu xam maqaamam xam-xam ak maqaamam boroom xam-xam maanaam bi mu war a toogee fonk leen teg leen seen place jàppale leen seen xam-xam ak seen yar mën a tasaaroo ci askan wi jàmm ne bey boroom xam-xam baat taxawee ke ñi tudde amir palaasu dimbali ko ndax xëy na at àdduna ak la ci jëm mën na ko gàllankoor ba li mu war a xam ci sharia wala li mu war a teewlu faat ko su ko defee mu jàppale ko ci xamal ko ak di ko fàttali ak di ko laaye biir ci wàllu jubbanti ñooñu suñ àndandoo rek xeet yi ak texe lay am waaye nag suñ tàqalikoo lu méttee métti la askan yi di dund lépp foo xam ne dem nga fa gis ne dañoo jël wàllu àdduna ne na yem fii wala na jaar fii na jaar fii ba yam fii wàllu alaxira ñu ne nañ ko tëj fële ci jàkka ja wala ca ruq ba yoonam du nekk ci àdduna dundug nit ñi contradiction lay feete dell jullit ya ndax jullit bi ci boppam ngir yëg-yëgam mën a ànd ak dal da jàpp ne ci sharia bi yàlla wàcce woon ne jàpp leen bi day yëg ne moom lay dund ci lu du gàllankoor waaye su amee lu ko gàllankoor rek su ko waxee ak su ko waxul moom texewut ci biir xolam métit lay àndal su ko defee nag yooyu ci boppam ay jafe-jafe lay indi juróom-benneel ba ki yàlla bëgg ci moom aw yiw mooy borom xam-xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi ddin ki yàlla nar ci moom aw yiw dana ko déggloo diine dana ko déggloo diine xadis la boo xam ne Buxaari ak Muslim ñoo ko génne ci xadis Muawiya ibn Abi Sufyan radiallahu taala anhu déggloo diine nag mu yufaqihu fi diin firiwul ne mooy rek na xam nu muy jullee nu muy woore nu muy jàppe mu jeex yëmut foofu loolu kese kese doyut waaye déggub diine al fiqhu fi diin yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee mu ñaanal abdullah ibn abbas ne allahumma faqihhu fi ddin wa allimhu tawil yal na nga ko def mu doon ku dégg diine kon dégg diine daa mel ne mooy li nuy faral di tudde nun fer iji ci diine fer iji ci diine bokkul ak mën a liifantu ba bu ñu la joxee ab leetar nga mën koo liif loolu bokkul ak fer iji fer iji mooy ki dem ci njàngum diineem ba xàmmee xàmmee mooy lan bu dee ci wàllu tawxiid xam na luy tawxiid ak luy bokkaale mu mën a daw bokkaale jàpp ci tawxiid bu dee ci wàllu jaamu yàlla xàmmee na sunna ak bidaa mu mën a daw bidaa jàpp ci sunna bu dee ci wàllu jikko xam na jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu rafet ya mu jéem caa tënku ci jëflanteem ak nit ñi kooku nag ab xam-xamam mën naa bari mën naa néew itam waaye mën naa mën ngaa gis koo xam ne boo demoon ci téere yi tuuti la jàng ci ay téere borom bi tabaraka wa taala baaxee ko mu am fiqhu fi diin boo ko andiloon dara lu bokkul ci diine ji rek tey day bañ naan lool loolu bokkul loolu bokku ci boo ko laajee naan fu ko waxee fan la ko sunna waxee kooku fer na ijji ci wàllu sunna ak bidaa boo ko bëggee ne kaay nu def nangam kaay nu dem béréb sangam muñ demee foofu am na nangam bu am nangam muñ defee nii rek suñu tiyaaba yokk mu ne la fan la ko alxuraan waxee fan la ko sunna dag maa bëgg a dugal ci bokkaale boo demee alluwa ji tuuti la yor waaye bopp bi ubbiku na kenn mënatu koo nax ci bunt yooyu kooku am na fiqhu fi diin mën ngaa gis nag koo xam ne jàng na ba war na téere yi dañ koy waxe téere boo ko joxe mën na koo jàngal mën na koo firi waaye boo dikkee fekk day fees ak yooyu biddaa yaa ngi ko wër fu nekk ak xam bu bari la shirk ak yooyu yépp boo waxee mu ne ah ñii daal dañoo bëgg a taral rek waaye mbir yi moom demewul noonu te xam-xam baa nga fees dell kooku amul fiqhu fi diin kon al fiqhu fi diin bokkul ak fiqhul masail dégg masala rek ñu ne bii lii la bii lii la bii lii la déedéet li nit ka di dund nag bi mu amee fiqhu fi diin xam nga yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu dee ñaanal saxaabi bu tal ne abdullah ibnu abbas yemul rek ci ne na xam masala yi ndax masala yi abdullah ibnu abbas ñu ko ko gën a xam amoon na ci saxaaba yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na alamukum bilxalaali walxaram moaz ibnu jabal mboolem saxaaba ki ci gënoon a ëpp xam-xam ci alxalaal ak alxaraam muy lu dagan ak lu daganut kooku mooy Muaz ibnu Jabal te téewul kii la ñaanal ne ko allahuma faqihu fi diin kon ñu xam ne fiqhu fi diin lam ci jublu leneen la lu bokkul ak xam alxalaal walxaraam ba ca tegu moo di boroom xam-xam yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen a jox tur wu neex tur wu neex woo xam ne yal nañu ci yàlla boole taifatun tayiba la leen tuddee taifatun tayiba mooy boroom xam-xam yi jëfe seen xam-xam di ko tasaare itam yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci xadis boo xam ne buxaari ak muslim ñoo ko génne mu ne innama ma inna masala ma baasani llahu bihi azza wa jal min alhuda walilmi kamasali gaysin asaaba ardan fa kanat minha taifatun tayiba qabilat ilmaa fa anbatat ilkalaa wal usba alkathir wa kaana minha ajaanib mu ne li ma yàlla wàcce ci man ci aw yiw ci aw yiw ci ak njub akub xam-xam nee na dafa mel ne taw boo xam ne dafa wàcc ci suuf dafa wàcc ci suuf mu ne suuf soosee am ca taifatun tayiba maanaam kuréelub suuf boo xam ne bu teey la bu laab la bu baax la kuréelu suuf bu teey bu baax nu muy mel bu ndox mi wàccee day dugg ci biir mu daal di sax gàncax bu baree bari jur gi mën caa jariñu nit ñi mën a lekk ca meññet kon ndox mi seey na ci biir suuf na nit ñi jariñoo nañ ko kon kooku mooy taifa tayiba beneen bi ci des mu ne wa kaana minha ajadibu amsakat ilmaa fa nafa allahu biha annaasa fa sharibu minha wa saqaw wa raaw mu ne am na ca nag bérébi suuf yoo xam ne kekk la kekk mooy foo xam ne bu ndox mi ñëwee du seey ci biir suuf si suuf si daf koy téye rek nit ñi bu ñu ñëwee danañ ci mën a màndal seenu jur suñ bëggee fóot mën nañ cee fóot suñ bëggee suuxat seen i garab mën nañ cee tànk dem suuxat seen garab beneen kuréel bi mu ne wa asaaba minha taifatan oxra innama hiya qiaanun la tumsiku maan wala tunbitu kalaan mu ne beneen kuréel a ngi boo xam ne nee na moom bu ñëwee ndox mi dana teey waaye bu seeyee ba àggal du sax dara demoon ci suuf si sës ci tefes taw taw doo gis mu sax am ñax te ndox ma dem na maanaam bu tawee ndox mi day dem du ko fa bàyyi kenn man caa ba noppi itam kenn du ci mën a jariñ moom it saful dara luñ mën a jëriñoo nee na ñetti kuréel yi ñoo am ci li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andi nit koo xam ne bu xam-xam bi ñëwee dana ko jàng dégg ko di ko jëfe di ko tasaarewaat kooku mooy kuréel bi njëkk bi koo xam ne bu xam-xam bi ñëwee mën na koo mokkal jàng ko ba mën koo jàngale waat waaye na jëfewu ko wala yaasu billah kooku musiba la ci musiba yu mag yi la bokk nit ñaa ngay jariñu ci xam-xam ba moom jariñu wu ci yàlla kuréel bi mooy boo xam ne bi xam-xam bi dikkee téyewu ko ba mënees cee jariñu faf jàngalewu ko itam yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne fa dalika masalu man faquha fi diini illahi wa nafaahu bima baasani llahu bihi fa alima wa allama wa masalu walam yaqbal huda allahi alladi ursiltu bihi nee na loolu mooy misaalum ki nga xam ne yàlla may na ko ak dégg diine mu xam lu xamle maanaam mu jàng jàngale ak misaalum ki nga xam ne li ma yàlla jox muy alquran ak sunna amu ci soxla amu ci soxla lam yarfa bi dalika rasan nanguwul diine maanaam nanguwu ko jëfewu ko kon loolu leer naññi yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon ni leen tuddee yéen borom xam-xam yi moo di taifatun tayiba ak kuréel boo xam ne bu tedd la kooku ci ngëneel yi xam-xam lu bokk juróom-ñetteel ba moo di al ilmu tariqun ila al janna xadis la boo xam ne muslim moo ko génne mu di ne képp koo xam ne soobu na aw yoon di sàkku xam-xam borom bi tabaraka wa taala ubbil ko ci yoon wu jëm àjjana kon sàkku xam-xam dara gënu koo tedd juróom-ñeenteel moo di boroom bi tabaraka wa boo jàngee alquran ba mu jeex jàng sunna ba mu jeex doo gis su sunu borom tabaraka wa di digale yonentam mu ñaan ko ndol ci dara lu dul xam-xam wa qul rabbi zidni ilma foo toll yow yonent bi del wax yàlla yàlla nag ma dolli xam-xam néewu ko dolli ma alal néewu ko dolli ma ay ak njaboot walay doom wala dollil sax li mu jullit yi waaye waqul rabbi zidni ilma kon xam-xam képp moo am ci loo xam ne borom bi tabaraka wa digal nag yonentam mu ñaan ko ca ndolleen kon xam-xam moo ëmb yiw yépp kon loolu moo tax fukkeel ba moo di kii sàkku xam-xam bokk na ci ñi nga xam ne borom bi tabaraka wa da a fatal boppam dañoo fatu si yàlla fat leen yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na ko ci xadis abu waaqid al-laysi dafa nett li mu ne benn bés danoo toog ci jàkka bi yonente bi sallallahu alayhi waalihi wa di jàngale am ñetti nit ñu ñëw kenn ci ñoom xool gis xalqa bi maanaam buñ masaan toog ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ab cercle la ñuy def cercle boo xam ne day wër ba dellusiwaat fi yonente bi alayhi salaatu wasalaam toog kooku ak si xool seen benn place ci biir cercle bi mu dem dugg foofa keneen ki ak si bi mu dikkee seetu sax ndax place am na wala déet waaye daa ruus daa di toog ca gannaaw keneen ki ñëw daa di xool seen jataay beeg ni yonente bi toogee mbooloo mi mu ne yunn ba seen leen daa di ne peut daa di dem ni ko ñenn ñi di defe tey bu ñu wootee lu jëm ci xam-xam ñu ne ah waaw fee lu fa nekk ñu ñëw xool gis ab jàngalekat toog di jàngale wala conférencier di conférence bu ñëwee xool tuuti rek xelam dem ci film ba mu waroon a seetaan ci waxtu wi wala am na lu ko waroon a gàllankoor loo xam ne ci yëfi àdduna yi kese la wala jaaxaan sax mu ne fay faset daal di fay bàyyi xam-xam ba daal di dem yonente bi alayhi salatu wasalaam bi mu jàngalee ba bindam jeex mu ne leen ala unabbiukum bi xabari salaasa kaay leen ma nekk li leen ñett ñii ñëw luy seen mbir ku jëkk ka nee na daa fatu fa yàlla yàlla fat ci xool gis place ci xalqa bi mu ñëw toog nee na kooka fatu na fa yàlla yàlla fat ko mbokk yi loolu lu rëy la de kon bul rombati jataay boo xam ne xam-xam lañ koy séddale te jëloo sa cër ñëwal xool ba gis foo xaj nga toog fa jariñ loolu fatu fa yàlla la yàlla fat la la te ci kaw suuf nit ci amul lopp loolu mu ne ka ca def dafa kersawu yàlla kersawu ci moom istaxya fastaxya allahu minhu ab cëram kon àggul ci cërub ki nga xam ne daa fatu ndax kuy kersawu da ngay kersawu ci palaasam palaasu foo xam ne nit ñi dañuy séddu boo kersawoo ba jëloo sa palaas kooku musiba kersaw nga ba jël ba toogoo ca biir place ba nga war a toog sa borom tabaraka wa mu seetaan la moom itam ba doo am yiwu nga waroon a am mu ne wa amma saalisu fa arada fa arada allahu anhu ke leen ñetteel nag nee na kooko daa du mooyu yàlla du mooyu ko dafa du mooyu yàlla du mooyu ko fukkeel ba ak benn xoolal borom bi tabaraka wa taala ci suuratu naml bi muy nettali suleymaan alayhi salaam digganteem ak balqiis bi ko hudhud indilee xabaar boobu yi nga xam ne xamu ko woon lu tax foofu kéemaani sun borom tabaraka wa feeñ na fi xoola yonent yàlla bu toll suleymaan yàlla di ko wax ak lim ñaan borom bi tabaraka wa ne ko may ma nguur boo xam ne du yell kenn di ko amati mu may ko ko lam yor ci xam-xam yor ci wax yi borom bi tabaraka wa am picc képp yor ci xam-xam loo xam ne xamu ko bi mu gisul hudhud lan la wax man de waaye tey moom gisuma hudhud xaaral ba mu ñëw fii bu dikkee di dana ma indil xabaar bu wér wala danaa ko rendi wala danaa ko rendi bi mu ñëwee lu mu ko wax nee na ko day dikke na naa leen xam-xam boo xam ne yéen xamu leen ko jóge naa saba indi leen xabaar boo xam ne bu wér la fekk naa fa buur boo xam ne jigéen la mu yilif leen te buur boobee am na gàngune goo xam ne maanaam pale ba chaise bañ ko fa tegal bu màgg la te ñoom ñépp nag dañoo ànd di jaamu jant ba kenn ci ñoom du jaamu yàlla kon xabaar bu rëy la boo xam ne dikkee na yonent foofu ndax ab yonent kat boo xam ne sa nguur yaatu na ba nga defe ne lislaam tas na ba nga defe ne ñëpp a ngi ci tawxid ñu indil la xabaaru buur boo xam ne noonu la arsham toll te gàngune gu rëy ci nguur day wane yaatu nguur nga ak kattanam ànd ak loolu lépp yow yëgoo ko yow yonent bi yàlla bi ci kaw suuf ñiy jaamu jant ba faf yëgoo ni ña ngi koy jaamu ba picc mi wax la ko lu ci Suleymaan teg mooy dama bëgg ku ma indil gàngu ne googee ngeen di wax arsu dama bëgg ku ma ko indil foofu nag kon jaadu na ay soldaaram ak borom yi kàttanam na ñu jóg feeñ xale ifritun min al jinn ji ci gën a bari pexe ne ko mën naa la ko indil bala ngaa jóg fii nga toog Suleymaan dañu wax ne alayhi salaatu wasalaam dafa daan xëy ca yoor yoor toog di atte ba waxtu tisbaar yëpp mu wàcc bi mu koy laaj toog na ab biir di atte kon bu doon ci suñ jamono tey da nga daal commencé na ca dix heures xanaa di atte ba onze heures ci misaal kooku ne ko bala nga fay jóge kon danaa mën naa la ko indil moom ifritu minal jinn kon diggante onze heures suñ doon joxe misaal ba deux heures ñaata waxtu ñett kon mën naa la ko indil daal ci misaal ci ñetti waxtu kon kooku boroomi pexe la boroom kattan la waaye lu ca tegu qaala alladi indahu ilmun min alkitaabi ana aatika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk alladi indahu ilmun min alkitaab kon xam-xama ngoogu boroom xam-xam ba nga xamee boroom bi tabaraka wa taala daf koo xamal xam-xam boo xam ne ñii nee nañ ci lawxul maxfuus la jógee ñii nee moo ci turi yàlla yàlla mu ne ko bala ngaa jógee bala ngaa xippi boo xoolee sa bët ba fa yam bala nga koo delloo siwaat mën naa la ko indil bi Suleymaan daataan tontu fa lammaa ra'aahu mustaqiran indahu mu geesu mu ne ko mi ngi nii kon andi na ki def loolu kon mooy alladi indahu ilmun min alkitab kon ku settantal loolu da nga yëg ne xam-xam du lu woyof du lu tuuti moo ëpp doole ifrit min al jinn njuuma goo xam ne gataat ka jommale la ci jinne boroom xam-xam mën na koo jommal mën na koo jaaxal kon loolu mbir mu mat a bàyyi xel la fukkeel ba ak ñaar moo di bu ñu xoolee boroom xam-xam yi banu Israil seen boroom xam-xam ya ña ca sellal xam-xam ñooñu ñoo jariñu gannaaw bi maanaam ñoo gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax seen xam-xam jàngaloon leen yonente bi mooy kan bi mu dikkee ñi xam ko gëm ko tax borom bi tabaraka wa taala bi mu waxee ne wa yaqulu alladina kafaru lasta mursala yi ñi ngi wax ne yow de doob yonent qul kafa billahi shahida kafa billahi shahidan bayni wa baynakum yàlla doy na seede sama diggante ak yéen moom seede gim seede ne ab yonent la loolu doy na ma wa man indahu ilmul kitaab ak seede gi nga xam ne mooy boroom xam-xami ahlul kitaab seede giñ seede ba tey loolu doy na ma kon boroom xam-xami ahlul kitaab nangu nañ yonentub yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu ulamaau bani israil boroom xam-xam yi banu israil nangu nañ ne yonent bi mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax alxaafis ibnu kathir ci aaya jooju daf ne al muraad al udulu minhum ñamaandu ci ñoom nga xam ne duñ nëbb seen xam-xam nangu nañ ne mooy yonent moo tax mu ne alladina yactarifuna bima fi aydihim min sifati muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa mabcatihi wa ummatihi kama axbara bi dalika man amana minhum ka abdullah ibn salaam wa salman alfarisi mu ne ñemaandu ci banu Israil ñoo nangu yonente goog yi ndax ñu fekk nañ ci seeni téere melokaani yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu moo tax lenn ci ñoom gëm ko topp ko ku mel ne Abdullah ibnu Salaam nga xam ne ci fóore yahudi yi la bokkoon ak Salmaan al-Farisi nga xam ne ku bari woon ab wër la lu jiitu muy agsi ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam jaar na ci diine yu bari <coughs> fukkeel baak ñett moo di boroom xam-xam rek moo mën a ragal sun borom tabaraka wa taala innama yaxsha allaha min ibadihi alulama innama kooku dafay dafay takk day wax ne ñii ragal yàlla képp képp mooy ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi loolu nag bu ñu koy wax xam-xamu sharia moo tax doonte xam-xamu àdduna bi ci yàlla baaxe mën na caa gindikoo mën na caa gindikoo ba xam ne l'islam rek muy dëgg ba xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yonent bi waaye borom xam-xamu sharia moom lañ gën a yaakaare ci moom ragal yàlla ndax la yàlla xamle ci boppam moo ko gën a xam keneen ku dul moom fukkeel baa ñeent te mooy bu mujj bi moo di ne xam-xam donte sax du xam-xam bu baax ci cosaan donte du bu baax sax mën naa dem ba jëriñ borom loolu nag luy soññee ci jàngi xam-xam bu bon nekku ci waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne xam-xam bu mu mën a doon bul ca jàng tuuti bàyyi jàngal ko cam kàttan ba àgg fa mu yem soo ko defee rek mën na laa jëriñ la cay misaal mooy saxaratu firawn jabar yi nga xam ne ñoo daje woon ak yonent yàlla Muusa alayhi salaam te àndoon ak firawn ñooñu ay jabar lañu woon yoo xam ne seeni pexe ci njabar fu njabar di àgg àgg na fa loolu moo tax bis biñ defee seen géew ba ba dajeeg Muusa alayhi salaatu wassalaam ñu def seen njabar gañ man Muusa sànni aw yatam mu dikk lekk njabar ga ba mu jeex mu del siwaat doonaasu yat mu fabaat ko yor luñ ca teg gëm dañoo daal gëm lu tax ñi gëm mooy wóor na leen ne fu njabar di àgg àgg nañ fa kon lu leen féete kaw doonatul njabar li leen féete ko mënatu doon njabar kon ak yonent rek lay mën a doon ñu daal di nangu loola ànd ak xuppi firaw naag yem leen dégg ci ay mbugal ak yu dul jeex dañ ne ko defal loo xam defal loo xam noon gëm nañ lii ndax xam nañ ne euh, dëgg la loolu li leen ko may mooy àgg giñ àgg fa xam-xam boobee yem donte xam-xam bu bon la su fekkoon ne ay jabar yi jabar yi ñëw ba ci digg bi rek lañ seen xam-xam matut kon ñoom mën nañoo jàpp ne kii jabar bu mag la waaye xam nañ ne fu njabar bi àgg àgg nañ ko ñoom kon lu leen seete ko mënatu la nekk mënatul la nekk njabar waaye nag la lay wan ne njabar ci boppam du xam-xam bu baax moo di jabar yooyu mbugal yu metti metti Firawna mbugal na leen waaye ci seenu tuub rek ci seenu tuub rek ci lañ daal di xamee ne njabar dagganatul wa illa bi leen firaw na di xub mënoon nañu wëlbatiku jabar jëfandikoo seenu njabar fi saa si toroxal ko wala ñu def ko loo xam ne xelam dana tal leneen lu dul naan leen danaa leen def léegi danaa leen def laa waaye xam nañ ne njabar daganatul te ay jullit lañ léegi kon mënatuñ koo def moo tax faqdi ma anta qaadin innama taqdi hadi alxayat addunia defal lu la soob xam naa loo mën a def daal suñ dund àdduna gi nga mën a jeexal waaye noonu gëm nañ ba noppi kon loolu tomb bu am solo ngi foofu bu lay fàttalil ne njabar ci jullit moom doonut lu dagan kon loolu lenn rek la ay ci tomb ay tomb yoo xam ne daf nuy won ne xam-xamu sharia ci boppam lim yor ci ay ngëneel limu na bari na tax na kenn ku nekk war na ko jéem a fàggu ji jéem cee am sa cër sa kem kàttan kon gannaaw buñ xamlee lan mooy xam-xamu sharia wax leen ci ay ngëneelam tomb ñetteel bi mooy majalaat al ilmu shari xam-xamu sharia fan lañ ko aajowoo fiñ ko jëkk aajowoo moo di ci buntu aqida ci buntu pas-pas ki xam xam-xamu sharia ci pas-pas lu mu koy jariñ ndax kenn ci yéen xam na ko ki xam-xam xam-xamu sharia ci buntu pas-pas luy njariñam tawxid su amee tawxid dana mucc ci dana mucc ci bokkaale ki xam tawxid mucc na ci bokkaale moo tax borom bi tabaraka wa taala ci suuratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ne faalam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik xamal ne la ilaha illa allah maanaam xamal tawxid al imam al buxaari rahimahullah ci fiqham mu def benn bunt ci téeréem bu màgg boobu yi muy saxiixul buxaari ne baabun al ilmu qabla al qawli wal amal daa di ne faalam annahu la ilaha illa allah wastaxfir li danbik mu ne bunt buntub bi wone ne xam-xam moo war a jiitu wax ak jëf xam-xam moo war a jiitu wax ak jëf kon ki xamul na téyew làmmiñam ki xamul du jëf ba ba muy xam aaya boobu faalam annahu la ilaha illa allah borom bi tabaraka wa taala mënoon naa ñëw ne bi yonentam qul la ilaha illa allah waxal la ilaha illa allah wala mu ne ko jëfeel muqtada la ilaha illa allah waaye faalam moo jiitu da ngay xam yow ci sa bopp la ilaha illa allah ndax xam-xam su amul mënoo gëm nit ki ngir mu gëm dara faaw mu xam lu mu doon soo ko xamee rek mën koo gëm waaye soo ko xamul gëm du mën a am moo tax xam ji mooy jiitu su jàllee mooy wéral pas-pas bi ca la wax di tegu nga door a def shahada shahada an la ilaha illa kuy kuy kuy shahada li xam lu mu doon wa ma shahidna illa bi ma alim na li nga xamul mënoo koo seede ñi takk sëy bi sax suñ dajalee mbooloo mi dañ leen di yëgal ak ak diw ak diw daja nañ fii doomi diw may nañ ko doomi diw kii tudd nii ki tudd nii su ko defee ña teewoon di seede di xam li ñuy seede lu mu doon suñ ko jógee xam ne ah ñoom kat li ñu doon seede mooy diw sàngam lañ doon may diw sàngam sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulilahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin kon fadlati cheikh docteur Ahmed Lo jazakallahu xayran yal na la yàlla fay aw yiw ñu ñaan borom subhaanahu wa taala mu yaatal sax xam-xam gën koo leeral te gën la yàggal suñ kanam bañ mën a sax di jariñu ci yow di jariñ sa xam-xam mbokki tedd yi kon ñoo ko bokk de na yaakaar naa lii kum doyatul ci nga jóg sàkku xam-xam baa bu fekkoon da ngaa nekkoon ci yoon wi nga gën cee farlu ma ni lii bu la doyul ci loolu amul la ne loo xamante ni mën na laa doyati li ñuy def rek dañuy ñaan borom bi subhanahu wa taala bu mu bokk ci ñi mu booleñ ci ñi nga xamante ni li ñuy dégg wax topp la nga xamante ni mooy la ca gën a jub bu loolu woy weesoo bala ñoo euh, yëkkati jataa bi maa ngi jàllale ay information yoo xamante ni nii dinañu yitteel mën ñoo amal njariñ maa ngi leen fàttali ni toujours mën ngeen di dem di déglu xam sa diine ci numéro téléphone bii di 213 493 0134 jamono ju nekk 24 hours mën ngeen ci déglu dellu ci émission yi ñu defoon yi ñuy def di ci déglu man ngeen a dem tam suñu w suñu suñu website www dat xamsadina dat com boo leen ci demee waxuma di ngeen mën a déglu archive émission yi mu ñu musa def lépp daanaka archive yëpp ngi foofu émission bu leen ci bëgg mën nañ ko déglu jariñuwaat ci gën cee xamaat wante am nañ yeneen mbir yoo xamante ne ni mi ngi ci website bi ci képp koo xamante ne ni jàng sa diina yitteel na leen yitteel na la di ko ci mën a jànge xam ko ci bokk na ci tafsiru alxuraan ak borom xam-xam yu bëri yoo xamante ni seeni i dar seen i leçon seen i ak seeni i ak seen i waxtaan mi ngi ci booleen demee ngeen fekk salon bi tamit lu mat a bàyyi xel la maanaam ab salon la comme ni ko tur wi euh, wane maanaam boo leen ci duggee tamit ay jotaayu xam-xam ngeen ciy fek maa ngi leen fàttali ni képp koo xam ne da nga am ab laaj boo xam ne laa yitteel sa diine mën nga woon ci ci 277 25 15 315 277 25 15 képp ku ci képp ku ñu ci woo amub laaj bu soobee yàlla dañ la boor ak boroom xam-xam boo xam ne la ci tontu tontu bi nga xamante ni mooy ba ca yella loolu tamit lu am solo la ci diine lu mat a bàyyi xel maanaam ku xamul ci diine da ngay laaj laaj te ñu xamal la da ngay laaj boroom xam-xam yi ñu xamal la. képp koo xam da nga bëgg a jokkoo ñun tamit mën nga ñu bind wala nga fekk ñu ci fee nga xam ne masjidu salaam wal xayr nekk ci. nekk ci two five twenty seven Lenox Avenue ci zip code ju di ten zero thirty seven ci second floor képp koo xam ne ñu fa bind wala nga fekk ñu fa maanaam di nga mën a jokkoo ñun ci lépp loo xam bëgg nga caa jokkoo ak ñun. ñu ngi leen di fàttali tamit ni toujours jàkka jooju tamit ki nga xamante ne moom mooy imam Aboubacar Cissé mi ngi fay amal ay leçons yoo xamante ko képp ko am jot maanaam boo fa demee di nga mën a jàng ci leçon yooyu. ci loolu tamit ci laay waxee ni maanaam émission bi nga xamante ni mooy ñëw ñu ngi leen koy annoncé ndax li ko waral mooy moom docteur Aboubacar Cissé moom imaam Aboubacar Cissé nga xam moom moo fi ñëwoon ci semaine bi passé doon ñu wax ci loo xamante ni dafa jëm ci fàggu xam-xam ci buntu diina nan la ko jiine jàngale te mu xam ci bëri loo xamante ni yàllaa kam yeneen dañ ko wax moom imaam Aboubacar Cissé moom tamit maa leen fàttali ni docteur la ci fële nga xamante ni moom mooy euh, Euh, New York Hospital Columbia University la jànge médecine tax na ba euh, dima euh, ajuma bii di ñëw moom moo nar a ñëwaat ci studio bi ànd ak man mais lan lay waxtaane li nga xamante ne moom mooy mbiru wér-gu-yaram loolu tamit lu mat a bàyyi xel la kon docteur Aboubacar Cissé wala imam Aboubacar Cissé noonu lañ ko tëdd dina mën a ñëwaat ah, vendredi bii di ñëw maanaam ajuma bi di ñëw waxtaane li nga xam moom mooy wér-gu-yaram te am solo ndax suñ communauté bi african communauté bi wala sénégalaise bi maanaam yàlla nattoon nañu ay mbir yu bëri yoo xamante ni ni day feeñ maanaam bokk nañ ay xeetu feebar yoo xam feebaru xol lay doon wala ay jabet wala ay cancer yoo xamante ni nii dañuy gàllankoor te yooyu yëpp dinañ ci waxtaan ak ñun waxtaan ci li nga xamante ne ay prévention lay doon loo xam ne buñ ko defee yàlla dañ ci mën a musal wala lépp loo xam war nañ koo xam ci mbir yooyu kon maa leen annoncé euh, maanaam ci euh, euh, ajuma bi di ñëw maanaam noonu la émission bi di demee kon na ngeen ko waajal di ñu leen ci jox dig daje ba bis boobu bu ko defee kon yaakaar naa li ci des mën na ñëw yëkkati jadaay bi kon mbokk ñu ngi leen sant di leen gërëm ci ànd bu rafet bi nga xam da ngeen ko ànd ak rajo bi di leen sant leen gërëm ci déglu bi nga xam déglu ngeen ko émission bi di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu wërsëgal ñu ak dégg akuk topp kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu